waaye ni ma dégg seen wax de xamal naa ne mënoon nañoo see defaat taxaw seetlu ñoom ndax yaakaar naa ne ñoom dañoo bañ ba am mbër mbërum patriote yi muy Ama Balde mbërum patriote yi Ama Balde bëri nañu daan ko muy waajaraat ko mbaam mu giir Gris Bordeaux baal ma bala ngaa jàll yaa ngi weddi sa bopp de. Hmm? yaa toog fii Sénégal man kay man waaw dégg na nga ni mbërum diw ak mbërum dim amul dama ne bu leen ko nangu laa wax da nga ni amut ñoom ñoom seen bëri la ma ne bu leen nangu loolu waaw léegi lu tax nga naan kon mbër nekk kay kon moo ba tax nga am ca mbër mu neex la te làmb ji ñëpp xam nañ ni fi mu nekk ni dimanche bu jot grand combat am hmm. loolu kañ ko ko gëj a gis kañ nga gëj a gis dimanche bu jot grand combat am dañ naan def dimanche bu grand combat amee. da nga toogaat ba jaaxle grand combat amaat. mais xoolal Modou Lo Ama Baldé jeex na. Mhm. Tapha Tine dimanche. Euh, Gris Bordeaux Ama Baldé ngi fi. Siteu laa dëggee a ngi fi. Bombardier rëg-rëg ñu maam combat yu mag yi tey it ñu ngi waaj a taxawalaat yeneen combat yi Balla Gaye Eumeu Sène a ngi fi. Bombardier Modou Lo Boy Niang taxaw na. Modou Lo Boy Niang ñu yëpp daat yi ñu ngi doon ci ci kii. mu tegaloo muy lu neex loo xamante ni ñoom dañ see war a kontaan ginnaaw am nañ mbër ñoom patriotes yi. dañ see war a kontaan waaye waruñoo wax loo xam ne day décourager loo amateurs yi patriotes yi war a dem seetaani làmb ji ndax ñoom ñoo leen xiirtal si làmb ji ba kii leen. ñi mës nga leen dégg ñu xiirtal kenn ci kenn ki am mbër la di. kan la Moustapha Mbër mi mënoon nit ni ko laa dama koy woo boole ko si programme bi bu ko defee patriote yi gën a am si gën a bëgg làmb ji. maanaam wala ñu may ko jot. waaw ah, na ko woo na ko woo tëggal ko combat boole ko si ndax patriote yi gën a ko wu si làmb ji. ñu bëri rek ñu dem ñu daaw dugg sa fi lu ñu war a dugg. Assane xanaa li li ñu goro moo tax nga di wet wetal affaire di wut foo jaar. kan mooy sama goro ma ni wax na Balla Gaye lu am solo sa à dire du sànni xeer nee na ko fàttalikul ñii ngay wax mm-hmm. ñoo la daan jëndal fonde ah. ñoo la daan defal ànd ak yow jëm ca làmb ji mhm. waaw ba muy lekk waaw léegi daa lekkatul fonde léegi xar lay lekk te ña ko daan jëndal fonde mënatuñ koo jëndal xar moo tax mu bàyyi leen fa dem sa ko mën a jëndal xar mu leen su ngeen ma jàppale ma jàppale leen loolu am na si droit mu ne ñëwee suñ ko jàppale mu jàppale àddina noonu la war a doxee waaw moom gis-gis boobu mu amee dañ ko koy nangul moom Balla Gaye 2 mbër yi daal si yéen liggéey la ñu nekk nañu liggéey fekkiwuñ kenn seen entraînement lañ nekk ñun ñooy daw di leen fekki ñun ñooy jël di leen tungoom ñun ñooy dagg suuf suñu xaalis di ko sa def ñun ñoo fay nekk di way te xam fañ war a waye ji nu mu faa waye ji waaw war a dem waye ji fañ war a waye ñu war a faa dem way way yu rëy def fa concert bu rëy ko daal dem si lamb ñu naan ay Sonko namm nañ la te fañ ko war a waye jeeg fañ ko war a nammantee xam nañ ko defuñu ko fan xam ma ko de fekkee da koo xalaat ma waxal la ko bu <laughs> fekkee xalaat nga rek wax ma waxal la ko déet man kay xalaatuma dara damay laaj. Ah, kon joxal El Hadj. loo ciy xalaat yow. déet yow sa xalaat kay laa si xam mu ngi sama xalaat jeex na si. mais sama yaakaar sama xalaat waxal. waaw yow sa xalaat mooy gone yëpp ñu dem principal fekk fi Ousmane Sonko yow loolu ngay xalaat te loolu bu ñu ko defee dañuy def erreur <laughs> booy nañu nañu dal nañu dal réew mi dafa am yoon mu muy doxe booy bu ñu jéem a dem principal di fa wuti lenn yow sa xalaat boobu baaxul <laughs> bu yee gone yi bàyyi leen ñu nelaw joxe El deel xalaat lu rafet. laaj ku yéego <laughs> yow xalaat lu rafet. mën nga yeewu ma ko de. non non da nga leen di yee. mais man yow ma xam ko. nee naa la sab xalaat dama koo xam jox hélas. <laughs>